noo gisee taxawaayu presse bi ci affaire boobu yëf yu mais taxawaayu presse bi tamit dama koy euh, dama koy rafetlu euh, gis ngeen bi mu amee après j'ai suivi euh, vu et même j'ai même été surprise et et, et très par l'élan de solidarité bi nga xam ne euh, samay naataangoo wane nañu ko. Et, puis li may rafetlu mooy on en pour gën a waxtaanaat on en a profité euh, pour sensibiliser waat nit ñi euh, pour que nit ñi euh, gën a delloo ci seen xel pour que nit ñi gën a bokk euh, causes yi nga xam ne moom mooy les causes qui nu qui nous concernent euh, et je je suis très touchée par l'élan de solidarité euh, exprimé par mes confrères non seulement sax par mes confrères ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci ci ci ci ci secteur médiatique bi ñu nekk ay chroniqueurs ñu nekk ay analystes journalistes reporters animateurs animatrices vraiment seen taxawaay Euh, rafetlu naa ko euh, te it maa ngi leen ci sant euh, di leen ci di leen ci gërëm mais pas